للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله لقد فاح لي من نشر هنيئا لإبراهيم بشار زيدي لأحمر وأسودي من هذا سبق سددي يوم جدار رسولي وقد كفى كلها عباء وكلها بقوله أنا لا عند استدراج

له الحسنى فقط عليه جبريل وهبط بكل نور معتلين أهلا بليل اثنى عشر فيه ويوم الاغر وضي بذلك السحر ونور في الجليل الخارقين يعيد الفكر فيك رفع البصر إلى مقام عليه ففي بمدحة شفيع بمدحة بديع أرحب يا محمد وما رآته من أجر آمنة إلى النصاب سبابة ثم اقترب

جفت الأنهار من أجله والنار طبعت من كرمنا الإفضال بأفضل رجالي في أفضل الليالي بالبلد المفضل

خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جدي لانجلي

اجلنا واستنارا لمن هوى الفخارا وغردا من منزل لمن أتي شهيري لمن تقي قديري أحمد يا محمد أكرم بشهر النسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان

متى ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي ربيعي بمدحتي أبغي بها الجمع به يوما ونهي لقربه وفضل حب ربي ومرضاه

ذاك العليم ذاك لمن أعيش بعين لمن تحب بديعي أولياء محمد صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل وصحبي وزوجي وحزبي وكل آلي حبي مع السلام الأكمل بمن عزيز شفيعي بمن تقي بديعي يا محمد بيائهم يا إلهي اغفر لناظميها واسمح والذي حضر أمهم بخفي اللطف واكفيهم نوائب الدار مع افادي الكدرة أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوه يا أحمد ما أصابه الخيارة اللهم صل على سيدنا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 شيخ الإسلام وبركة الأنام دنيا الإمام الأكبر للحضرة الإبراهيمية مولاي الشيخ حاج أحمد التجاني ابن مولانا سيد علي سيسي وعنو رك مبالم حماد الحضرة دي أمبكتك كونتانتي دي أندق ين فيكي مسجد الجامع لمولانا شيخ الإسلام wa barakatil anam ci li nga xam ne rek mooy gàmmu gi ñu feggoo ak suñu mbokk suñu sëriñ suñu sopé abul bashar ñu gën koo xam ci aadam di doomu suñu baay suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Kharachi Cheikh al Islam wa barakatil anam war a seq ak moom waxtaan woo xam day aju rek ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ngëneel gi nga xam gën na ko mboolem yonent yi nga xam yàlla yónni na leen wala gën ko sax bépp mbindeef boo xam yàlla bind na ko Aboul Bachar dañ lay jox kàddu gi rek ci thème ci laaj boobu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 niko suñ sëriñ doon defé di Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu nga xamné bu wër wi teraan daan ndokkeel bopam di wax ne hani an li ibrahim laha hilaluhu hilalun bada li nazirina jamaaluhu ndokkeel woowu nak ñu ci ndokkeel suñu xalifa Seydu Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahim Niass الله عنه xaadimul الامه suñ ko ndokkeelee ndokkeel nañ mboolem ummatul islamiya waaye ndokkel nañ tamit mboolem njabootu baay gi toftal ci imaamul xadara nga xam ne mooy imaam Cheikh Tidiane Ali di ko ñaane yàlla yàlla yokk fanam mooy ko wér di ndokkeel tamit naatiqu rasmi Cheikh Mahamadul Mahi ak représentant wu xalif bi ca Dakar muy Cheikh Mahamadul Amin Ibrahim Niass dëgg buñ ndokkelee ñooñ ndokkeel ne ñeneen ñu ci des yëpp di waxtaan rek ci li nga xam ne moo waral jotaay wi nga ne moom lay amal tey nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko dafa war ci ñun rawatina ku ñun biñ koy ndokkeel nga xam ne woykat yi daan nañ wax ne walidal huda fal kainaatu diyaau wa famu zamani tabassumun wa sanaau الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء عليك أفضل الصلاة وأتم تسليم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم nga xam ne woykat bi mi ngi wax mu mooy ki nga xam ne jamono ji bu fekkoon ne nit la fi mu ne mu ngay bég di ree ngir gane gi ko yonentu si yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane nga xam ne mu ne ruuxu yeeg borom ruuxu yeeg lépp lu yàlla amal rek mu ngi kontaan si juddu yonentu sallallahu alayhi wa sallam te loolu siira dëggal na ko ndax bi mu juddoo lali buur yeeg mboolem lu war a màggal màggal na yonentu sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne loolu ngëneel gën na koo rëy bu toon rek ne bant yeeg lu dul bant yaa ngi màggal yonentu kon ñun warawatina ñun dañoo war a màggal yonu sallallahu alayhi wa sallam bay bëgg a dee ku wax loolu nag dina ñëw ci thème bi tuuti mu gën a gaaw ndax eh, yàlla dafa indi alxuraanam gi nga xam ne mooy al mooy kàddu gi gën a mat ci kàddu yi nga xam ne maandu la jàngale ci lépp mënoon na ne bii ñëw yonantu lay jiital mais jiitalul yonantu daf ko dugal ca biir gile moo jiitu waaye suratul baqara nga fa kaafiruun nga fa munaafiq yaa fa ñëpp kon loolu mu ngi ñuy jàngal ne ñu nit ki mu wàccee ci mbir mi moom moo gën a màgg lépp xam ne boo demee ci biir alquran mu ngi koy junj xam ne yonent yàlla Moussa ba mi ñaan yàlla gis yàlla def na ko lantaraan yi waaye xoolal yonut sallallahu alayhi wa sallam yonentu la ko Moussa yàlla moo ne ko maa kasabal fuaadu maa raa kon dëgg dëgg kooku gënal nañ ko ci kaw yonentu yàlla Moussa gile yonentu yàlla Moussa yonentu la am na ngëneel comme yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu yent yàlla ibrahim ñaan na yàlla ne ko defal sama làmmeñ bi wa jaal lii lisaana sidqin fil axirin yàlla déglu lu mu wax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko wa rafaana laka zikrak kon kooku yëkkatiwaat nañ ko beneen yoon ci kanam yonent yàlla ibrahim kon da ngay gis ne yëkkati goog du dañ ndax moom wax na ne man yutii rasula faqad ataa allah képp koo xam bëgg nga maa topp man yàlla rek toppal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo topp nga ma man yàlla kooku nag la ñu màggal kooku biñ koy màggal dafa mel ni dañoo laaj bàyyi kan mooy kooku mu ne mouhamadu miftaaxul futuhaati sayidi wa xaatimi sirki rusuli xatman muqaddama mu ne yonent mi moom mooy yonent mi nga xam ne moo ubbi lépp luñ tëjoon waaye tamit moo tëj lépp luñ tijji kooku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp d'accord nañ ne yonent moo fi jiitu woon yonent yàlla aadama loolu doon ci werante kuy weddi loolu na dellu ci alastu bi rabbikum qaalu bala ñun ñëpp a waxoon bale kon kat fan lañ waxee woon bala waaye du fii fiñ kon nag fii foofu lañu ñu jiitu woon waaye rawatina fi kon dafiy continuer du ñu jiitu ba tey yonentu moom nag la bàyyi wax ne bihi naala kullul ma manaaluhum bi zinatul xadaraati am na ñuy wax akwaani waaye boo ci wax baax na waqil muazzama nee na yonent yi mës a jug ak fuñ mën a jugee lépp luñ mën a am tëbb yuñ mën a jot lépp luñ mën a def yonent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ball ball lii ball ci yonent yi ci yonent moom lay jugee ko kon kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da dayut tamit ñu ne ngëneelam yàlla wax na ne ci képp koo xam ne bëgg nga teddal yàlla rek teddalal yonent walillahi képp koo xam ne yelloo nga tedd rek yàlla daf ne man lay doon wala yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ana yeneen yonent yi boobu fu ñu nekkoon kon yàlla indi na yonentu dëggal ne moo gën mboolem yonent yi naka noonu boo demaatee alxuraan a ngi waxaat ne ah, yàlla mu ngi jaayante képp kuy jaayanteeg yonentu yaa inna allazina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allaha yadullahi fawqa aydihim kon dëgg-dëgg da ngay gis ne képp koo xam ne jaayante nga ak yonentu yaa ngi jaayanteeg yàlla te yàlla wax na ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah kon dëgg-dëgg buñ ci continuer woon du du doy du du du jeex waaye dëgg dëgg li muy wane rek mooy tedd nga ak yonantu ndax bàyyi loolu la waxoon walim la wa izul abdi izu malikiim kon da ngay dégg ne dëgg dëgg ñun jaam yi waxuma yonantu yi nag ay jaam leen waaye ñun jaam yi lépp lu ñu teddee tey rek ci tedd nga ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci ngeen koy tedd ci lañ koy teddee te loolu dëgg dëggal na ko ndax ki nga xam ne ne suñ suñ jaam yi yor ci suñ kër yi liñ leen jox ci ñun lay bàyyeekoo kon ñun ci suñuy tedd rek ci ñom lañuy teddé kon bu koy zahir bi di jàngale tamit nak non la koy baatin bi di jàngale kon dëgg-dëgg ci gàttal kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ma sha allah ma sha allah abul bashar liñ ma délo rek moy muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa kal yaquti bayna al xajari yonent yàlla muhammad nit la de waye du comme nit ñëpp gën mbolam mboolem yonent yi comme niko sama waxe inna khatmal anbiya faaqa arsa la biya deug degg na len ndax ya Adam ya nuh ya daoud wa ya Muhammad duñ ko gis fen ya yor rusulu ya yor mudassiru ya yaa muzammilu lol yeb loolu yëpp nga xamne ne kawe na ko mboolem yonent yi gën gim leen gën juñ indi nga ko ci yonent yàlla musa ak yonent yàlla Muhammad lépp lo xamne ne yonent yàlla musa mu ngi koy ñaan rek yonent yàlla Muhammad yàlla jox nako doyna ci rek bi nga xamne péeb yàlla bi yonent yàlla musa mu ngi ci bëgg duggu yàlla daf ne ko summil sa ñaari dàll waaye yonent yàlla muhammad moom fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa la yàlla wax waaye nag la yàlla wax ak yonent yàlla Moussa ñu ngi koy jàngale wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa muy wax naan hiya asaaya demet ba mu jeex waaye yonent yàlla muhammad fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa jërëjëf Abul Bachar ci kaddu yu rafet yooyu nga xam ne indi nga ko waaye yàlla yàlla bëril sa kem waaye guddal sa fan rangal la maqaamaay baay yeeg maam yi defal ko bépp doomu xadara bi te mooy jullit ñëpp fu ñu mën ci alam bi yàlla yàlla déggloo ñu yonent bi من كرويك ظاهر اكتبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للنار